وصحبي صلاة دائمة من يوم قلقت الدنيا إلى يوم طلاقي واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق مكي جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام hadaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bu ngeen xamul lu muy tekki ma tekki ko ñaar yi duñ ko dépassé ak fay nuyoo amul koo xamante ni yàlla bind na ko nga yore maqaama maqaama toog ci ba pare dépassé nuyoo doyoo ko doyoo ko guddiw nag doyoo ko gudd yàlla sa day nuyu yàlla day nuyu waaw atayiyaatu lillahi azakiyaatu lillahi atayibaatu asalawaatu lillahi asalaamu alayka kan mu nuyo yàlla nuyo ah fu yàlla di nuyoo yooyu nag ñun ñoxo ñoxo yi nag lu ñu war a def kon ñaari duñ ko taxase muy assalaamu aleykum ak waaleykum salaam borom xam-xam bi naa rëy rëy rëy rëy ba bu rombee toog du ko nuyu xam-xam baa ko jey borom deret yi ku bokk fu baax ñu koy askanele fu baax mu ngi jaay deretam ba tax suroom rombee nit di wax asalaamualeykum fii yàlla di nuyoowee malaaka di nuyoo kon nu nit war def mbaa xam nga ne balaa dugg aljana malaaka yi liñ lay tarkale salaamualeykum tibtum fadaxulaha xaalidin ku ko malaaka waxu rek doo dugg aljana waaw bala ngay dugg àdduna ma aljana malaaka nuyu yonent bi bu ko daan jibril di indil wax yu day ñor ko asalaamu aleykum mu ne ko yaa rasulallah sa nee na nuyu na la yonent bi mos a toog ci xuru mag toowaay bu jekk السلام عليك يا رسول الله ونقول عليك السلام ونقول جبريل لنا جبريل صبرم لنا نوينا لنا السلام عليك يا رسول الله تقول انت باني توك سجد توك توك ابو جاك sallallahu alayhi wa sallam waaye di ngeen wax sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ma nett li benn xissa wala ñaari xissa soog a dugg ci ngir ngeen xam njëriñu assalaatu ala nabi ba xam ngeen ne jàmm jaamu yàlla bu nu ko for ah ah ah xoolal kenn ci saalihiin yi ku doon julli ba toll ci taaya fàtte julli ci yonent bi di bàkk yàlla rek di bàkk rek ba fàttee julli ci rasulullahi mu tëdd gént gis yonent bi mu ne ko xëy yow diw mu ne ko naam mu ne ko soxloo bàkk yàlla soxloo tagg yàlla moo tax ma fàttee julli ci yow rasulullahi yonent kanaa xamoo al amalu mawqufa والدعاء محبوسة إلى أن يصلى علي مولن جيسي دنيا تخوى مولن يعني دنيا تك لولو دنيا جوليتي من رسول الله مصوبة دمشيا خيرا جيسي دنيا صلى الله عليه وسلم دمنا آمين ثم آمين ثم آمين بمين يتيو صاحب لبوا سنيتي آمين لقوة يا رسول الله من يالنا تسكري yàlla bet ya. ki dégg sama tur te julliwut ci man rasulullah ba muy première amin bi ñu ne ko deuxième amin bi mooy lan mu ne yàlla na perte yàlla na torox ku wor weer koor ba waru kër jeex te jégguluñ la say bàkkaar maanaam te seet ko ci bàkkaar da nga wóor doon rek bàyyi ku wóor weeru koor weeru koor jeex da ngaa war a ci bàkkaar comme liir bi nga xam ne génnee na ci biir yaay nga xam ne dara topp beneen amin bi mooy képp ku dund ak ñaari way juróom yàlla na perte yàlla na torox ci dund ak ñaari way juróom yi te amul seen ngërmaane mbaa xam nga ne bone yàlla ne yonent mbaa xam nga ne woo jur nga si teg ak nu sëriñ màgg màgg màgg màgg munu tegee ci bopp wayjur sëriñ ak nu wayjur ah wa bil walidayni ihsana xoolal aayaat yëpp mu dox diggante doom ak wayjur rek nga fay fekk ihsaan bil walidayni ihsana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil waalidayni ihsaana kon nañ ko bàyyi xel ma ñëwaat ak samay mbokk ñëwee ndigal ndigalu sama sëriñ xalifa Mour balaa may woy ñetti salaatu faatiha laay soxla njëkk loolu nga def benn faatiha ñu ñaan xalifa Mour Bachir ak mboolem njabootu si dara jamono yi yàlla yàgg leen fi lool tam jàpp auzu billaahi mina sheytaani rajiim jabori si dala yow ndaw yal na fi yàgg lool waa ji ko am jàmm dalaale yi waay ñun xalifa bi sunu sunu yiir waay la waay Sida yow na waroon ne ku am jàmm dara la yit gis nga nit buñ la rusee cent pour cent dafa fekk nga nekk ak say waajur bis boobu ñàkkee waajur cinquante pour cent sa doom am barke Cheikhu Tidiane kon waajur lu mat a bàyyi xel moo tax ku am jàmm dara la yit si dara yam doo ma ko kon ñëw naa ànd ak samay nawle ñii samay mag leen kay bopp ci yoon bi mooy sayidi misbaaxu al misbaaxu fii sujaajatini sujaaja ka annaha kawkabun turiyu moo nekk di toog di doomu sayida yi ñun li ñu xam mooy waqi kabiran sadiqan najiba wa xam saqiran aajisan xabiba loolu ñu si dala yi moom doo jàng wegal mag ah seen yow mag mag ñi bëri nañ di mu ne kabiran saadiqan najji balaa waxuma mag mu dëgguwut de mag mu dëgguwut ku dëgguwut loo ci fonkal moo sa mag bi nga ne dëggu na nekk tànneef yow mi mag war xam saqiran aajisan habiba yow mi fare mag yërëmal xale yi sëñ bi ñu ko yàggal kon ñëw naa ànd ak samay nawle ñu bokk Sida jamono te ëppale leen ci dara ñoo ci yem fott waxoon naa leen daaw ne leen benn nen ci mbooloo soo ko amee tey kenn du am da koy meenees ku ñëw jël mburum sëb ba doxi soxla loolu laa leen waxoon kon ñoo ko bokk waaye def ngeen li seen moom jàngale xaqun ala al aalimi allah yaxtuwa لدعوة وجمع أي لا يسمو خطوة ولا يبتغي ثوابا ولا يقي النفس بها عقابا لا يجلسن مجلسا قد يجلب عقبة الوسر ولا يرقب إن ابتلي بمحضر فليقم لله بالإرشاد لا بنعم أو لا بنعم يا kon li mam jangale jàngale wane ngeen ko tay yéen ci ku yalla jox xam-xam ngay jeego benn jeego di jëm ci woote wala nga jëm ci mbolo ta sàkk pay yalla si yalla yow dog pay yalla ta sa bakkan di Google. mu ne borom xam-xam war nay am dignité sax bu du dog ci place bo xamanteni amana place bi bitti ak bakkar mu ne moom wala yu rafetlu sax waru ko xeebal waaw waaye nag inub tuliya bi maxdari bu fekkee nim na toof na ko moom borom xam-xam bi bi maxdari ci teewuwaay boobu noonu sëñ bi neen far yokku mi na jóg moom borom xam-xam bi taxawee billaahi ci yàlla lu muy taxawee mu ne bil irshaadi ci jubal mbooloo moom fa fekk laa bi naam bu mu na naam rek laa bi naam bu nekk ñu ngi am lu xewal kese ñaari masque yëpp baax kon sang yi jërë ngeen jëf Seydi Taye Seydina Yusuf Seydi Taala gàcci ngaaraam mbir mi seen mbiru bàyyi mbiru yurante seen mbiru moom la ñëpp ñoo ko bokk ku ñu naan nga ci man daya al xuquqa lil ixwaani sëñ bi nee na yu daya al xuquqa lir rahman képp ku sànq sa xàq bi dox sa diggante yaa say mbokk xamal ne sànq nga xàq bi dox sa diggante sa borom sëñ dégg wax sama wax de bu fekkee da nga xam ku toog ngir weddi nag ewo nga nga dawaale bu dee mbaam nga indi waral muy puti bu dee jagataa dawal accéléré man ñaari ñaari kàddu yi laa am qaala laahu qaala rasulu qaala borom xam-xam nag duñ ko weddi déedéet kuy weddi rek jëlaale sa baat taw man maqaawa xoma si dara sariya la ma basiru jànguloo xalifa moolu basir sariya la ma jànguloo jàng naa sariya ñu ñëwee itam beneen ndigal suñ mag haasimiyu nga xam ne ñëwoon na fii ci ngoon gi ah, teg was bi dugal matt yi teg cin bi dox basiiru ñëw jël cin gi def ci ndox taal mu tàkk seexu ñëw sóor bàyyil Moustapha nag ñëw yekk gaa lekk mu ñëw tàkk lekk bi seen biir yi fees del leen fóor nag ñu ñuy so so sonn naw dama bëgg yàq yàq jikkoy Seydina Muhammad ku ko yàq yulli yulli laa way def wamtil uluma ya faqiha li wajji mawlaaka tëkkun wajjiha waaw loolu laa ci bu ma xaal laaj ci bu ma jërëjëf ci bu ma dara maa ngi taw daal ngir yàlla rek tax soo moom loolu la jàng ku bëgg daraja fa yàlla tawal xam-xam te yàlla rek tax loolu la sëñ bi jàngale ma bëgg je ma bëgg a wax ci benn jëmm benn jëmm jëmm joj si daa yema mu ne ñun fi ñooy xob yi yenente yi ñooy bànqaat yenente bi mooy taaru garab waaw raqal xalqu oh, moom nee na waaw raqal xalqu من أشجار خلقتي أمنا نور أمنا نور اسمه يا مبدي ويا الله زمان يتولد القلب من ود يسير سد خير خلقتي يا مبدي ويا الله ديجل سان بيرو مخو alwaraqu lu muy firi xob waraqu sañ sëñ bi tëdd si la tëgg xeer xeer la ci tëgg xeer xeer lu bàyyi am ala awraqa kii des ko nit la alwaraqu ismu la ismu sëñ bi tëgg ko xeer am ala lu bàyyi muy awraqa arab da koo xam de mu ne wa awra ko xoboot xoboot boo ko firee leneen doo de wa awra ko xoboona alxalqun min def yi si dara yem ci luñ xoboot mu ne min asjaari xilqatihi ci garabu pindalee rasulullah am naa doxaa bànqaar yi garab yooyu sëñ bi ne ne ar bu leerul ñu dellu ginnaaw. taamu garab gi muy leen bànqaasu garab fu mu jógee fuy tesaan ndax bu daan amul bànqaas yi am kon yonente bi huwal asl yonente bi mooy tesaan xobi garab yi fan lañ cosaanoo ci taaru garab bi la cosaanoo kon yonent bi mooy cosaan sëñ bi ne na wa awraqa xoboona alxalqu mbindeef yi min asjaari xiiqatihi ci garabu bindalay rasulullah am naa na banqaasu garab yi dem ni ci asjaar la dem rusulu mooy yónnente yëpp yaa mubdihu ay yow aji yaa allahu yow yàlla li mooy cosaan maam Maodo nee na wa innahu is arada allahu nashatana أبان من نوري أبان من نوري نور الهدى العالم أبان من نوري نور النبي العالمي سنبنكو ما خلقه الله من نور برحمتي مقصدا بألاء البد والقدم مام مودا دمني أبان من نوره نغفاكم

أشعة تلعب من أفضل النسب ما موراكو كون يونت بي هو أصله mooy cosaan kon ñun ñëpp ci yonent bi lañ lañ askano daaw dama woon fu ma yem ak yéen muy muhammadun asanul axlaaqi wal xaal amoo woon heure bu ma firee axlaaqu nabi sallallahu alayhi wa sallam wala lu ma ci firi ndax jikko yonent man mënu ma firi yëpp ndax makaarimul axlaaq ci rasulullahi la daje kullul makaarimi min siwaaka abal muiru fa anta maliku kullul makaarimi min siwaaka المهير فأنت مالك الثاني xamoo makaarimul axlaax pour nit am ko faw nga am maqaamam rasulullah sëñ bi na ko aw rison bay daka tax lii sa makaarim nii doon na sa jàmbu xew bii te muy sëy sëy daraaje ma ndaw te da jikkul rasulullah الله كن ين بصدق وعدك يا بزين يا الله ورسل بنا كل المكارم من سواك هارية أما المعين فأنت مالك الشام كل مكارم العرب فوق النك خليفة يرنتي بسوكمنا من يعمل تودي jikko yonente bi waaye complété foo nga doon di maqaama rasulullahi ndax xamoo ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaqi aadama ñëw na indi tabax noon ñëw na indi tabax Muusa indi tabax Iisaa tabax Ibrahima tabax mais yonente bi dafa ñëw fii di

Basiiru wax na ci baayam wax joo xam ne nit mënu ko dindi nit ku ko mën a dindi xamul yàlla ñu yàlla fayal Seydi Alaaji Omar Ndaw waaw man dama gis doomu Seydi Alaaji Omar Ndaw yi ku ci ne am maqaama moo xamante ni tey buñ koy waxtaanee ci guddi gi ci xaj waaw man man est-ce man man am maqaama man maqaama moom est-ce que ma ko foo ko lu xaw ma raw na ma jamono ji mooy yàqu fu ma koy jëlee problème bi mooy bu médecin yi feebaree luy malade yi def malade dañuy dee rek dañuy jeex dañuy jeex kon kan mooy fajati kuy fajati kan la te médecin yi dañoo feebar léegi borom xam-xam bu jàngal li yàlla wax dëgg ci tànk jàngal li rasulu lay wax dëgg ci tànk te ñu lay woowee borom xam-xam la ah yéen yéen a wax ne léegi ah, ñi doon ne ñi doonu rasulullah yi doonu lan bi yaw yi mooy ñi yàlla jox xam-xam waaye seen maam nee na bi sharti qasyatin bila iskali yooyu amul werante de loo bëri xam-xam xam-xam xam-xam boo rawul yàlla bokkoo ci borom xam-xam kaccor nga innama ko jëkk wax sax kon seen maqaam yooyu fu ñu koy jëlee man de loolu moo ma jaaxal kenn nangu na ah kon tey daaw laa di ñëwaat waaye yéen nañu ko am. xamoo fi mel ni Seydi Basir. ku mel ni Khalifa Basir. wala yàlla na fi yàgg tamit wala ñu gën tànn bi waay. da ngeen di da ngeen di day wax rek ngeen toog. mu ne Ibrahima def ne walaw allimal aqwaamu ma inda sayqina la faroo lahu aaman fa aaman. ila waaw mu ne doomu aadama yi xamoon li nekk ci suñu sëriñ Xalifa Basiir kon dañ daw at topp at ilaa la ko yaa dem ci dajeeg moom waaw ay at ngir dajeeg Xalifa Basiir waaye moo noon gis ma man si de la jamono yor na sol mbubu koom ak dàll we doxee ko ba ngeex takk xam naa balaa nga ak si moom da ngay dee dàll we mu ne fa waalidul faaruqu sayiduna omar tawalla lahu atahziba wa dasa wa raqaya ñun mingu boobu seen bàyyi xamoon ko si ñoom ak ñun nangu gi ñu nangu woon ñun est ñun dañ ko nangu bàyyam moo ko yar bàyyam moo ko jàngal bàyyam yéegal ci kaw góor yàlla yi waaw ñu yéegal waaw ñun dañu ne kon Muhammadun sayyidu saadaati kulli ma Muhammadun jaamiul jayfi wa abtaar sila yow naw nee na Muhammadun Muhammad sayyidu saadaati mooy sangu sang yi ay yonent yi foona de dafa nekku sa di di jéemu ne di sanguwante nit déedéet ndax moom mooy forage bi moo tax xaw ma boo demee boo demee loolu bokk na lu ko loo siyaadatu wa saadaatu kulluhum tamam ah. dina tax soo moon tey rasulullaay masdar la ko jox tey masdar bi la kon ku am sang rek yaa ngi koy jëlee ci rasulullah wal masdaru aslun wa ayu aslin wa minhu yaa saaxi ishtiqaaqul fiili kon rasulullaay mooy aslu kon ku am cang rek yaa ngi ko jëlee ci siyaadatu rasulullah wala mu wa saadaatu kulluhumu taxta maratibiha quran sawi sa sëñ Tuba wax na ko lahu siyadatu loolu bara yowma alastu wala da shafaa mbakk yi moo ko jox na ko masdar moom itam kon ku nekk sang yaa ngi koy jëlee ci rasulullah fa ma mela qarmun déglul qarmun wajihun munirun wajhu qamarun dafa ni ñu magal Mustafa qarmun qarmun wajiun munirun wajoo qamarun sama mera waqat badat ibratun bin nuuri fi sulami sina yow na waj nee na qarmun sang la moom yonente sallallahu alayhi wa sallam ne ko bàyyi ngoro dañuy dañuy dañuy tànn dafa bare du ñu am benn yoon xarmun sangala moom rasulullahi wujji un borom ak daraja ku ëpp daraja rasulullahi amul moo doon wax ne tawassaloo bi jaayi fa inna jaayiya inda allahi asim bu sooy di wax ne ko warsub ila saati ma shita min sharafin warsub ila qadari ma shita min azamin inna faddala rasulillahi ليس له حد فيعب عنه ناطق بفم كان من غير كون مولى قرم سانغلا موم رسول الله واي وجيون بورام درجه لا زيغا درجه رسول الله بالله بو خول جي سيدي مكي دا بي غيسي مو وارث فاروق بهجه وتربيه يرجئ التقى li kulli man yunaaji Cheikhu Tidiane mu baaw saaw moo doon woy sama baay xasida yooyu dafa xajul fii rek moo doon ma bàyyi ginnaaw waarisu faaruqi bahjatan wa tarbiyatan yurdiu toqa li kulli man yunaaji te loolu loolu dëgg la mu niirun aji leeral la yonent bi mooy leeral waxoon naa ne lamp yi contact bi ngay contact mu tàkk leeral rasulullahi ci nekk jant bii di leeral leeral rasulullahi weer wi sax leeral rasulullahi salaay salaam moom bu ñu ko bàyyee rek duñ jubóo sëñ bi nee na wët uhu xar xaramu yonent bi xamarum dafa lu weex ba mel ni weer waqat sëñ bi na waxat waxat ba det waxat ba det feeñoon na ibratun pusu Aïcha ba bi nuuru ci leeru xalxal bi yonente bi bi fi fi sulmi ci waxtu la ndandoo pusu la yore di ñëw moom Aïcha radiyallahu waxtu la dem la boobu yonent bi dafa génn lamp baa ngi tàkk ab ngelaw jaar fa ab ngelaw li fay lamp bi Aysa nee na nekk na ci néeg bi di wër pusu bi ba sonn mënu ko gis fu ne dugg na gis nga ba yonent bi ne tël xaar xanam bi leere gi ci nekk moo tàppe ci pusu bi Aysa dal di ko gis waqat ba dat ibratun bi nuuri fi sulami sëñ leen waqat ba dat feeñoon na ibratun puso ku ko moomoon Aïcha puso la nam ci jamono yi la nam woon xarxanamu yonent bi yàlla fii na قد صيدت وجور عين ساكر وجه بالفم nee na xarxamu yaasin te mooy yonent bi mislu samsi comme jant la ci leer xat sa dëgg-dëgg sayda texe na wuju ura ina lan lañ gis saakal waj ah boobu la xarxaram toog mooy xarxaramu rasulullah sallallahu alayhi wa waaye nag dafa am saako sëñ bi nee na ko gis texe de dama ne bii fële bi boo ko gisul doo tere ana boo daal awo yàlla ñu ngi sawara waxtu wu ne ñu naan moo boo ko gëmut doo texe kon charte bi mooy bil fële bi waj yaasina mittu shamsi qad saidat wuju u raina laakal wat ah waaye bil fa ëpp sëñ bi dafa am de kon yonent bi sàng la ci ñëpp. fa ma mel waan te tax ko mu dëggal loolu. bil fadli li suuf tëddi Israaïl xalqi yaakaar mu yàllaaw. sëñ bi dafay dindi màggal Mustafa sama am nee na waan te tax ko mu bil fadli li suuf tëddi لله الأرض يعقب إبلاه يا من دوم وي نكو أنت يا يلا تحكم دغا أتي بالفضل تيغني nga àttal li suuf de yi ñeel cangeelam moom rasulullahi rasulullahi nekk can cange ci kan mu ne li saa iri xalq moo leen mbindeef yi laa wax yonent bi mooy seen Ahmadou Mbacké qaddamta sayyida al-baraa yaa Ahmada wal anbiyaa wa rusli yaa man humida loo ko yonent bi mu ngi ci kanam a kanam sëñ bi na ko xaaral ma tontu la ko tuuti qaddamtahu jaami'an badi'an wa muhtataman yahdi qalaa'iqa mu dolli ko benn qaddamtahu rabbi muhtaaran tusawiruhu للذي في ساعتك ويوم جاء منهم boo bëgg a xam fooraayu yonent bi salaay salaam gëstul way woobu lu ci si daal yow la wax xaddamtuhu rabbi muxtaaran mu ne ko tusawiruhu waaye nag li sirfisaati li sirfisaati wayu mag ko day wax kon Mamadou Saafiul axyaar yi. sama mel ak yonent yàlla Muhammad. Saafiul axyaar yi jumlati. sama mel ak Muhammad. laabisu taqwa bi imaani. sama mel ak Muhammad. yonent yàlla Muhammad. dama ni ñu màggal yonent yàlla Muhammad. Saafiul axyaar yi jumlati. Muhammad. muhammadun muhammad sëñ bi nee saafiyool axyaari mooy aji ràmm tànneef yi jumletihim bàyyi ma kenn waaw tànneef yëpp yonent bi moo leen ràmm yàlla nañu ràmm waay suñu waaye waxoon na ne de ëllëg yawmal qiyaamati sama digganteeg maa yonent bi dara du fa dox nga wax sa xalifa loolu yaakaar la de kon ñun bi mooy rambu mboolem tànneef yëpp demal ci lub lub sama mera yu safoo hembu xam la kulli tiira tamit min ala taabiri asmi wal imami yu salaw sëñ bi nee yu salaw dana rammeef mu daaree bu ñu rakk naay faay gi mooy alxibbu moom mooy naay faay xam la ku lii yu tamit borom ak daraja di ramb rasulullah mooy ramb mu ne mi na nakkaa bi ci buy màgg yërënte yi laa wax ulul azmi ñooy borom ak dogu wal himami it noonu ca la bokk Ibrahima ci la bokk Iisaa ci la bokk ñii balaa ñuy ram dama ne Rasulullaah mooy ram bu bare laa ana qawlu shaafi'in wa mustafin man may ki ñu njëkk ram mu ëllëg yow qiyaam xam nga ci teg wala faqara ba xam nga yonent bi daal puuru eh yonent bi mosul jaar ci puuru yonent bi mosul jaar ci puuru waxtu mu daan dugg ci ay saxaaba bu ñëwaan rek saxaaba yi dañuy jóg di ko màggal moo yonente bi benn bis mu ñëw leen bu ma kenn màggalati heure su ma ñëwee yéen ñëpp toog leen bu kenn jëw beneen waxtu wa yonente bi ñëw saxaaba yëpp toog am ku jëw taxaw yonente bi leen ñu dama wax doon ni bu mu ñëwee bu kenn jóg waaye ne ko ana aqumu wal qiyaamu ilayka fardun ay yumkinu man loo aqalun salimun yara wala yaqum mu ne ko man damay jóg ndax jóg jëm ci yow farata la ndax dana jàpp ne ko am xel mu sell la gis la ba pare te lu jóg keroog yonent bi dafa kontaan ba ne képp ku mokkal bayt yi nii ëllëg maram mu la yomati yam xaju na yomb nay dugg de waaye jafe nay dugg de kon yonent bi soo ko mu ramb sëñ mu ngi koy wax nafsi nafsi sabab ne nafsi nafsi yow ma xaaloo subaaw koot amri ilayka xayra عليك مهتمدا اليك ملتجيا يا سابع السابعين عند التيار نفسي نفسي سما بقولاتل سما بقولاتل يوم قال بسبا وخي السفاو ويربوي تروك بسبا سيدا يوم نمين فوتو جويلنا أملي سبا مير إليكا jëmee ko ci yow rasulullaay xayraati yow mi gën ci giir alayka alayka ci yow mu'tamidan mbir moom aji sukkandiku la aji sukkandiku laa ci yow ilayka ilayka multajiyan ci yow laa wéedu yaa saafia saafiina yow aji rammu woy rammu yi inda dayyaani inda dayyaani anta wa anta yow rasulullahi maxsuusa yaay ki ñuy jegale safaa bi min xayri mustaami ci lu benn buuxante min adiraami ci way mag yi sawi qurbaan ñay war ma jege yàlla wa ridwaan ak ngërmane jërëb loolu wax jarog soxlu ma kenn kenn kenn pour yow sama mbir mi yëpp laa ko jox yow rasulullahi te mel ni ñu màggal Moustapha sama am nee na wasoo samaati sul maqaami yahmado sama am nee na wasta jamaati turran saa'ira al umami ci waasa wax na ko تأتي إليه الشفاع ليشفع فيهم قدم إذ الوتيس أفزع يبقى يجبل رسول الله يبقى ba ñëwee ci Adam mu joxe ngant ne nafsi nafsi ñëw ci Moussa mu ne nafsi nafsi ñëw ci Noox mu ne nafsi nafsi Ibrahim mu ne nafsi nafsi Isa mu ne nafsi nafsi Isa ne leen idhabu ila abdin xafara laahu lahu ma taqaddama min zanbihi wa ma taaqar dem leen ci jàmm bi nga xam ne yàlla baal na ko lépp lum jiital ci bakkaar

gars yi nafsi nafsi lañ doon wax fàtte nañ seen seen xëy di sax yonent bi naan ummati ummati ummati moo tax sëñ Tuubaa ne sabata annahu yaqulu ummati wa xayru nafsi li ajlil qummati waaw mu ne sabata annahu yaqulu ummati ummati ummati waaye wa xayru nafsi nafsi li ajlil qummati ñëpp ngay wax naan sama bopp laa tal sama bopp laa tal yonent bi naan sama xeet sama xeet sama xeet yàlla ne ko ràmmal mu ràmm ba pare digal ay yonenteem ñu ràmm dootoo moor sëñ bi ko wasu shafaati gis nga wasu shafaati la ko wax mooy borom ràmm yu bëri yi zul maqaami mooy borom ak taxawaay ba ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا مقام سوا من يحمده دنا سنتكم ويرتب ساير أم مولم تك ترد باي مكان فلا كيسنت سنبينا وسط الجماعات fa diggante mbool leen te ma yeewa tey keroog ñëpp bay sant ba yonent bi wallaay ndax moo njàq rek yëpp Mouhamad moo ñu si génne. loolu sëñ bi ne ko wa anta safi wa anta safi may yow mala soo tabaati wa anta muqi fi fi tabiati jaayil wa anta safi yow mala soo tabaati الثبات وأنت مقيم في في طبيعة الجاهل سيدا يونو موجك كل رسول الله دي مقاربة أبو مو نكو أنت يا رسول الله شفيعي يو ياي أجرم من سيدي يوم لا ذو شفاعة tiit borom ak ràmmu xam na de ay bi muux nin muy jëriñ xayru ko pour yow benn ràmmu du jëriñ sa ràmmu rek ay jëriñ yaa may ràmm ndax loolu wa anta yow mu xiis yi yow yaay aji xetti la ma fi tabiatil jaa yi ci jikkoo jikko aji yaa tax ba ma ndax si dalay ma doo ci loxoog la yoroo وربي عبدك يا رحمن زاد بن بيد حبك ودغ يربو رسول الله لامو سيدنا يمن لامو ما مكين ضعيفك من آداب خلوتي ما مكين ضعيفك من آداب جلوتي تقول يا ولدي na ko moo رسول الله لامو سيدنا làmba لامو ku ko ëpp yaram waaw mu ne ko muhammadun laabisu taqwa wa ikmaal maanaam rasulullahi koddaayam ragal yàlla yaa bani aadama qad ansalna alaykum libaasan yuwaari sawaatikum wa risha wa libaasu taqwa zalika xayru wa libaasu taqwa zalika xayru taqwa cawarso saali nga xëy sëñ bi sëñ bi ñaan na lii mu ne ko daay rasulullah yi mooy ragal yàlla maa ngi lay ñaan man mii man ya xalimna sama cër yi woo dee ko ragal yàlla li ma xam ci cër yëpp ne ko xamar mooy ngi nii wala ma dagg sa cër mu ne cër yaa de jeex waaye xamar du mooy yàlla albi sawadiya taatin wa afiyatan bi wasfi xilmika ya xalimu yàlla dul yàlla moo ko nangu kon xamar mooy yàlla kon ko daay bu rafet comme sama bos bii ah bii xam benn yéen xam nga la maam mooy xol bu xoddoo ragal yàlla suñ xol yi misin taaroo yàlla na ko suñu koy taaroo maanaam ñàkk dem gi du dara lu dul xol bu ñuul kukk kukk kukk ba benn kër loolu rek moo ñu sonal maanaam sa xol bi bu tilimee doo dem fenn fenn fenn doo tàkk doo sëxal doo booy doo def dara nañu raxas xol yi xol yi seet wecci ñu bëggante te yàlla tax moo tax mu ne طيب صاف الشمائل محمد سيدنا محمد طيب صاف الشمائل أنا محمد محمد طيب aji teeci jëmm la gis nga ba yonent bi gaañoo bañ ko muur doom ji ñuy wax Fatima dafa ñëw hummi wuññi muuraay bi نكو تبتا حيا وميتا يا رسول الله يو بغي يدنو تيغا يو بغي دي تيغا مرق حسان ابن الثابت بمي تغي يرنتبي دفنكو وأحسن منك لم ترى قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء قل يختم برعا من كل عيب كأنك قد قلقت كما تشاء ne ko yow yow yow yow yow gën a rafet sama bët ne ko ku la ëpp taar ko yow dañ laa bind nga set dañ ci bépp ayib ko dafa mel ni yow na la neex na la yàlla bindee ka <laughs> kon dafa mel ni mu ngi bëgg guddi wala muy bëgg bëccëg gi sax te jàngkat yi ñëw ah sant nañ yàlla gërëm nañ lool ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp yéen ñi bàyyee ko Dakar maa ngi leen di masuwu ci woon yàlla ngeen di wut yàlla ngeen daje euh, Moustapha Meng yàlla nga daje yàlla boo boo boo amee yàlla xam lépp boo ñàkkee yàlla da ngay ñàkk lépp te boo ngeen ne waaw ay milliards ak yooyu boo amee yàlla yal na yàlla ubbi wërsëg yi def leen mag mag yu baax mag yu barke mag yu jub forma yonent bi yàlla ko mën yàlla na ko def tànk bi yëpp ay ndaw la ndaw yi fi nekk yëpp yàlla nekk mag yal na yàlla tàppe xol yi yàlla yàlla dindi lëndëmu xol yi def ci nuur iman ni ko doon sëñ bi ñaanee wax aati qalbiya imanan wa tasiyatan wa tuura wal xaqa yaa tawaabu yàlla wa naqi qalbiya min zanbin wa zulmatihi ayaa mooy yii yàlla na nekk ci ñun xol bi na set laab bu ko dara topp xor mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba daa mel ni sëwër bi jot na de nga yëngalal ma ko ah tante bi tante bi muy xëy célibataire bu bu bu déwénee da ngeen fexe fexe fexe fexe ba yàlla dimbali leen ngeen indaale seen soxla yi na yàlla dogal ba ma yónni. daa nekk bañ toogee ba léegi xale ko daal ngay teg.